nekkoon suñu waxtaanu tey mooy fan yëpp dañoo seetlu ne dañoo xaw a gis ay yëngu ay yëngu-yëngu ci biir kër gi te naam mbir bu amee il faut ñu xool mbir boobee lan moo ko lan moo ko sabab donc ba tax na ñun en tant que comité d'entreprise APR La Poste di ay politique di yëngatu ci ginnaaw président de la république pour fas yéene dooleel direction général bi nga xamante ne moom la fi teg ñu jàpp ne. am na liggéey boo xamante ne kuréel yi ñuy tuddee syndicat ak organisation yi ne ci kër gi defoon nañu liggéey ju am solo yoo xamante ne war nañ ci mën a génnee ñaari ponk yoo xamante ne ponk yu dëgër la mooy benn bi ñu xool kër gi saytu ko ak dox ni muy doxee ci waxtu yi ñu toll beneen bi aussi ñu xool yan ñooy décision yi nga xamante ne mooy ay décision majeure yi war a tax kër gi jëm ci kanam ñun ñu gëstu ñu gëstu leen donc ci yooyu décision ñu jàpp ne président de la république Macky Sall bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi moo ngi jàppale ay entreprise te foog naa ne post bi nga xamante ne entreprise publique la war na mën na yeeyoo ndimbal googu parce que loolu day tax mu gën a ñoŋal gafkaam gën ko dimbale ci li nga xamante ne moom mooy mission beneen bi am na kër goo xamante ne ñoo ngi ko tuddee délégation à la solidarité nationale ñu yoreel ñu lu mot euh, ñeent fukk ak ñaari milliards yoo xamante ne ñoo ngi ko jëlee ci bourse familiale yi ñuy fay ñu war ñu ko fay te ba léegi ñu ko ñu yaakaar ne war nañ ko mën a fay même buñ ko fayul itam direction général daal di ko jël dugal ko ci gafkaam dina wàññi li nga xamante ne moom mooy manquement yi ñu am ci ci wàllu googu ñetteel bi mooy euh, li nga xamante ne moom lañ tuddee euh, service public universel mooy un milliard trois cent bi état di fay ñu jàpp ne dafa xaw a néew tuuti ñu xool nan la ñuy def ba yokk ko te yaakaar naa ne ñu am ci am ci dige bu dëgër mille 2014 ñu yóbbu ko à à 6 milliards 700 tey jii ba fi ñuy waxee ak yéen am na 12 milliards yoo xamante ne war na dugg ci Gafka Post te ba léegi dugagul mais itam ñun du lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii parce que xam nañu président de la république jàppale bi muy jàppale poste gëm gi mu gëm poste ak bëgg bi mu bëgg poste ñun yaakaar nañ ne loolu du doon problème pour mu def ko. ñu ne itam président xaalis bi nga xamante ne dañ ñu koo dénk dañ ko war a tëggaat xool nan la ñuy def. pour yokk yokk ko mu mu gën a yokk suñu loxo war nañu mën a am benn fonds de relance boo xamante ne war nañu ko mën a dimbale ñu xayma ci suñuy gëstu ne état bi bu ñu dugalaloon quinze soixante quinze milliards war nañu mën a dimbale pour la reconstruction des fonds de tiers waaw beneen bi ci topp mooy tey jii xam nañ ne kër gi boo xoolee lu lu lu toll ni quatre mille travailleurs kër gi war na mën a am yeneen taxawaay yoo xamante ne moom la war a taxaw parce que li nga xamante ne moom mooy charge yi jóge na ci dix huit milliards dem ba ci vingt quatre milliards te loolu itam il faut ñu am fonds d' boo xamante ne président de la république lañ ko yaakaaree ci ay directives yu muy jox ministère des finances ak notre tutelle technique pour ñu dimbali ñu pour loolu mën a jëm kanam donc looloo tax ñun ñu yaakaar ne loolu yëpp bu ñu ko defee. naal yi nga xamante ne président de la république ak directive yi mu jox directeur général du groupe mun naal ko ci poste finance war nañu mën a jëlee poste finance ci situation bu mu nekk ñu yóbbu ko ci situation boo xamante ne na def métier yi yëpp comme ni ko banque yi di defee te loolu moom mooy suñu bëbëb te yaakaar naa ne itam poste finance moo ngi ci tànk yooyu parce que kër goo xamante ne def na ñaari at exercice comptable yoo xamante ne ay la yewén benn bi am nañ ci six cent mille six cent millions boo xamante ne donc li ñu ko jox mooy suñu DAT yi ñuy def ak yenn placement yi 2019 bii ñu génn itam ñu amaat lu ëpp 600 millions te loolu itam boo xoolee li ñu ko jox mooy produit classique yi nga xamante ne moom lañu am moom mooy CCP ak CNA donc tey jii ñu xalaat ne ñun war nañu mën a am beneen taxawaay en tant que politique parce que itam boo waxee syndicat nga wax ne syndicats yi dañuy laaj mais ñun dañu war a jàpp ne syndicats yi dañoo war a migrer dem vers ce que l'on appelle les de participation donc looloo tax ñun ci xayma bi ñu xayma ñu wax ñu xalaat ne dañoo war a jàppale poste jàppale post mooy ñu jàppale ko ci xalaat jàppale ko ci jëf jàppale ko ci liggéey parce que loolu itam bu ñu ko defee yaakaar naa ne war nañu mën a euh, pérenniser suñu emploi beneen bi itam ñu créer valeur ajoutée pour li nga xamante ne moom mooy clients yi ak yi